الحمد لله حق jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ne nii rek yéen a ñuy topp si biir réew ak biti réew ah, ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne rek ñoo ngi continuer liggéey bi ba tey a ah, gis ngeen plateau yi am solo yi nga xamante ne nii moom la sëñ maam Thierno doon def ak sëñ Koso ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax waaye gannaaw ba ma leen jëlalee ci bëccëg interview yi nga xamante ne nii rek moom moo nekkoon Daaru Xuddoos ah tey nag maa ngi fii nag ah, ci buntu barabu sëñ bi mu mel ni nag fekk naa fi ñi nga xamante ne nii ñii ñu ngi yor seeni téere di durus waaye jàngkatu xasaayit yi itam ñoo ngi euh, jàng seen xasaayit waaye kuréelkat yi itam ñoo ngi kuréel waaye soxna yi itam ñëw nañ ci biir bërëb bi euh, muy barabu sëñ Modou Moustapha ñu ngi ñëw ñoom itam di ziyaare nee naa la kenn ñoom ñëpp euh, ku ci nekk rek da nga jóge ci dëkk euh, dikk ndax bés bi rek euh, dikk pour ñaan waaye itam dikk rek ngir ziyaare itam sëriñ moo du Moustapha damay daal di daagu ndànk rek xool sama mboro mu jigéen ñi ah kan laa ci mën a denk sama micro nag mu daan may wax ziyaaram ci biir naka la demee jërë ngeen jëf. maa ngi lay ziyaar ma bàyyi la rek nga daal di ziyaar téléspectateur mu Fatihul Bichri waaw maa di ñaan yàlla saa borom defal nu fekk di déwén déwén yàlla defal nu xéewal ku wér fas suñu aajo yi ci barke sëñ di ñaax di wax nag rek màggal gi moom dañ déwén déwén neex na dëgg yàlla nañ ko téewee déwén yàlla fajal nu aajo yëpp barke sëñ Touba barke sëñ mu mel ni yow dañ laa fekk ci barabu sëñ Modou Moustapha lan nga taamu ci barab bi ba tax nga ñëw fi. xanaa yaakaar sëñ Touba rek ak sopp sëñ Modou Moustapha ak gëm bi. dëkk Touba nag moo tax référence tey ci biir Touba rek nekk ci li yaa sëñ Touba bëgg ak lim santaane rek mooy mooy sama sama sama teewaay bi tey gëm sëñ Touba rek bëgg sëñ Mourou Moustapha def ko sama xol bu baax a baax rek moom ma tax a jóg. Ah, yaa booy nga fàttali ma tur beeg sant bi. ah soxna Kumba Fall. waaw ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Eh, waaw jërëjëf jërëjëf naan ko téye demin. amiin amiin. booy maa ngi lay nuyu di la ziar. fay naa la sama doom. maa ngi sant yàlla. nga fàttali ma tur sant bi. Ndeye Mati Niang laa tudd. Ndeye Mati fan nga jógee ñëw màggal si. Dakar laa màggal si. waaw. ñu fekk la nag nga nekk ci biir barab bu sëñ bi ñu bëggoon a xam rek ah, lan moo tax ah, nga ñëw ci barab bi ndax nag jumaa ji bëri na ay barab lool. ma lay xamal na la jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Modou ndax moo jëlee sëriñ Touba njaareem andi ko fii Touba màggal gi. ak bis bi sëñ Touba ñëwee Touba dañoo maase talaata la woon kon dañuy sant yàlla ñun ñëpp di sant yoon nañ di julli ci Seydina Mouhamed di sant suñu ñaari waajur di sant Serigne Touba di ko jaajëfal ndax Serigne tuubaa lépp lu mu def jaam ñi rek a tax moom jëmmi boppam ji taxul de jaam ñi rek a tax njabootu boppam gi taxul de jaam ñi rek a tax kon jërëjëf Serigne Touba sëñ Modou Moustapha kenn mënu koo fay. ndax moo xëcc raay bi andi ko tuubaa ba max godoron bi andi ko Touba andi courant bi Touba andi ndox mi Touba tabax jumaa ji samp godoron bi kon ñun mënuñoo fay sëñ Modou Moustapha taawu sëriñ Touba bi yàlla suñ borom di yokk leeram suba bu xëyee ci ay yomal ba sàq gam ne suñ borom di ñu taaf ci barkeem ñun ñu fi des ñun nag sëriñ Touba dañ koy jaajëfal ndax sëriñ Touba képp kuy dund rek war boo xëyee boo yeewoo sëpp say tànk boo nee alhamdulilahi rabbil alamina nga julli ci Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam war ngaa sant Serigne Touba ndax kuy julli moo tax ku lekk ba suur moo tax ku kontaan moo tax ku nekk ci jàmm moo tax kon jërëjëf Serigne Touba sama doom wa salaam. man daal tamit <laughs> man daal Serigne Touba mënu ma koo fay. dama koy jaajëfal fu ma toll di ko jaajëfal fu ma toll loolu laay def ndax ku ko jaajëfal yaa ngi perte ku ànd ak Serigne Touba perte nga dañu leen ànd ak Serigne te yàlla rek tax. yaa booy ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax mu mel ni kàddu yi am na solo bu baax a baax ci noonee nag ci laay continuer rek di wéyal liggéey bi ndax mën naa am ma gis góor yàlla wala ma gisaat sama beneen yaay rek ah ñu daal di xool nag bés bi nan la ko dund. kilifa gi maa ngi lay ziar. maa lay delloo ziar soxna si bu baax. ñu rek fàttali ñu tur beeg sant bi. ah Mahamadan laa tudd. Mhm. fekk la ci buntu barabu sëñ Modou Moustapha. waaw waaw foofu la dama duggoon doon ziar rek euh, di si magal daara xam ne Euh, lépp lu baax rek loo ci jéem rek doyul muy loo xam ne war na képp kuy mburit muy ci bépp barab boo xam ne mi ngi ci jumaa ji rek ñu siyaar ko bu baax a baax euh, loolu daal xam naa ba pare boole ci ay ñaan comme que ñun ñëpp a soxla ay ci jamono ji nga xam ne dafa xaw a doy waar waaw loolu daal lañ si sàq bu baax a baax di ñaan yàlla tamit jéggal ñu suñuy bàkkaar ñun ñëpp defal ñu tawféex defal ñu dégg-dégg murit ñu bëggoon a xam rek nan nga dundee màggal gi tey ndax màggal gi moom jouru ñaan la. waaw waaw du jouru neen moom parce man damay kuréel moom loolay sama sama passion moom daal fi ñëwee léegi xam naa ne euh, moom laa fi nekkee woon moom laa fi kii yeeg loolu noonu yëpp am naa ñeneen ñu ma àndal sax ñoom laa àndal. yow fan nga jógee ñëw si ma. Dakar. Dakar. Mhm. ñu ngi leen di jaajëf si jaajëf. kilifa gi maa ngi lay ziar. waa ñu ngi nangu ziar yal na yàlla. nga baaxee ñu tur beeg sant mbay Mbaye Gadiaga waaw. Ah, sëñ Mbaye dañ laa fekk ci bunt barabu sëñ Modou Moustapha ñu bëggoon a xam rek lan moo nekkoon say tànk. Ah, xanaa ñëw màggal bés bi rek sëñ Modou Moustapha bi noonu wax dëgg bés bi moom ku fa mën a fanaan sax mooy li gën wax dëgg yàlla moom saa su bu nu fekkee fii ci réew mi wax dëgg yàlla fi leen fas yéene fanaan daal maanaam di màggal bis bi di ko dundal di jàng xasaayit di jàng ci xaside yi rek ak alxuraan ak xaside comme ni ko sëñ bi daal li sëñ bi bëgg daal ñu ne ci rek di moytu tere yi. mu mel ni tey bés bi euh, dafa nekk bésu ñaan bi ngeen bi nga ñëwee euh, lan nga def ci bés bi. ah ñaan moom mi ñëwee moom li ñu njëkk def mooy ñaan rek comme loolu nga wax rek bésu ñaan moom wax dëgg yàlla ñu ngi jógee ba Ndakaaru bi ñu ñëwee. loolu yaa def suñuy farata yëpp di ñaan ci yàlla ak yonent bi kenn ku ñu fasaale sa xol rek ak li nga fi indi yàlla na yàlla faj aajo yëpp rek wax dëgg yàlla ñaan lu baax rek jàmm ci réew mi ak Sénégal ak bitim fépp rek ñaan ay xéwal yu bare bare saawan baawan ci biir Sénégal ak Touba gi ñu nekk waaw ba baax na jërëjëf soxna waa kay jërëjëf sëñ bi ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax kàddu yi am na solo. kilifa gi ñoo ngi lay ziar. waaw maa ngi delloo ziar soxna si. baaxee ñu tur bi ak sant bi. man Mouhamadou Kébé laa tudd fan nga jóge ñëw màggal si. maa ngi bàyyi ko Kébémer. Ah, dañ laa fekk ci buntu barabu sëñ Modou Moustapha ñu bëggoon rek nga waxal ñu tuuti ci euh, diggante sëñ moodu mustafa ak Serigne Touba seen diggante naka la demee woon. aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim xam na xëy na dañoo mënta ñàkk ñàkk wax rek waaye baax maanaam baaxewuñu wax daal sëñ Mouhamadou Moustapha dafa nekkoon koo xam ni euh, jàmbaaru lislaam la woon moom euh, jàmbaar la woon nit ko am fit la woon te itam ku wuutu Cheikhul Khadim wuutaay bu bu ñëpp xam ndax Sëriñ Tuubaa sax xëy na neexula wuutu waaye wax dëgg yàlla feesoon na toogaayam bu baax a baax ndax bokk na ci li nga xam ne mooy wane ak njàmbaaram bi defe naa bi Cheikhul Khadim di di ko wan ginnaaw boobu am na ñu naan am na ñeent fukki at am na ñu naan amugu ko ci côté daal lay toll. Euh, wax dëgg yàlla te loolu defe naa ni aj la boo xam ni boo dañ koy dañuy faral di wax ni moom moo nekk aj ba nga xam ni mooy mooy mooy digg ndaw mooy digg doole ndaw waaw boobu boo amee wax dëgg yàlla tamit nekkoon fi ak nasaraan yi. Euh, ci ni ni ni ni ñu xam woon ci seen kàttan ci leen suñu boroom jaay euh, nga mën a nga mën a nga nga mën a wax dëgg yàlla def taxawal lislaam taxawal lu mel nii muy fi ñu taxaw nii muy jumaa ji fexe ba indi raay bi tuuba ci ci ci ak nasaraan yi ni ñu doye woon waat yëpp wax dëgg yàlla loolu dafa nekk loo xam ni jàmbaar dëgg moo ko man jàmbaar dëgg moo ko man te itam euh, dafa bari ay jikko yoo xam ni yu nekkoon Sëñ Mouhamadou Moustapha yoo xam ni mi ngi ci turandoom ki ko sun ki ko cheikhul xadim tudde muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon lii nii mu mu am ni jomb ko jomb ko te itam defe naa ñi ngi wax sax naan jamono yi nga xamee ni euh, yaram bi xawoon na sutante bi ko euh, maanaam médecin bi doon teet bi mu koy traité dafa wax ni kii de dafa mel ni ab coono moo ko jàpp mu wax ni ah ñii de bu fekkoon dinañ wax dëgg ma ni wax nañ dëgg fii ndax man jàpp ma xala euh, maanaam jàpp ma daal fan la fan laa noppaloo xanaa ñetti yoon xaw ma xaw ma yoon mooy bi nga xamee ne jumaa ji taxaw na maanaam fondement nañ ko mu leen jog na kaw dootul dellu ginnaaw ak biraay bi ak see Tuubaa nee na daal ñaar yooyu daal ci la jàpp ni ci lay doog a dalloo ci lay doog dañoom sax duñu dallu waaye da ko noonu rek kon ñu ñun ñun ñuy taalibe foofu liñ war a jàngee mooy jàmbaaru cheikh jàmbaaru cheikh Mouhamadou Moustapha mu ñu ñu ñu fexee jaar ci tànk yooyu maanaam euh, comme ni comme jamono ji nouvelle technologie ni mu ni mu ni mu avancé te avancement bi la ci bëree bëri jëm ci ay yàqute mu mu nekk loo xam ne dafa nekk loo xam ne dafa dafa dafa nekk lu contre l'islam presque boo boo seetloo daal dafa nekk loo xam ni lu jàmmaarloo ak l'islam la kon ñun ndaw ñi war nañu fexe ba ba ba xeex loolu ba ba ba di jëmale l'islam kanam di jéem a te loolu dara mënuñu ko may loolu tegu ci ak yoonu jub jéem a jàng jéem xam sunu diine jéem a xeex seytaane seytaane nouvelle technologie boobu am na côté bu baax am na côté bon ñu jéem a jël côté bu jéem cee jaamu yàlla jéem cee xamle jéem cee def lu baax daal waaw loolu daal nga soxna si nga jégal ñu xam naa dañoo mënewul wax mais loolu daal lañ war a jàng ci bis bi muy jàmbaaru Cheikh Mouhamadul Moustapha ak njàmbaaram ci loolu lañ lool lool lool daal lañ ci war a jàngee ñu ñaan yàlla nag suñu borom dajalewaat fi ay déwén yu bare bare bare bare lu ëpp téeméer at bi jaay Seydou wujudi wa alami shuhud sallallahu alayhi wa sallam ndax boo koy ñaan da nga koy ñaan ci li mu toll xam am na fu boo ne yàlla na fi yàlla dajalewaat lu ëpp téeméer at am ñoo xam dañ naan mais suñu borom mi ngay ñaan moom dara jomb ko ndax may na fi nit ñetti junni at mu dund ko may na fi nit mu junni junni at kon nag bu neexee ñaan ko lu ëpp loolu sax yàlla nañ fi yàlla dajalewaat lu ëpp téeméer at bi jaay Seydil wujudi wa alami shuhud sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Mouhamadou Moustapha mi ñu taxaw baram barke Cheikhul Khadim barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw jërëjëf jërëjëf kilifa gi mu mel ni kàddu yi am na solo ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax ah di la ñaanal itam yoonu jàmm ak salaam yàlla na la Serigne Touba ngi yaa kay jërëjëf euh, mbokk yi ba tey rek ñoo ngi ci barabu sëñ Modou Moustapha jóge guñ fi benn yoon jàkkaarloo waa nag keneen koo xamante ne ni nag ci waa kër Serigne Mbacke soxna la nekk yi bàyyi rek mu daal di nuyoog téléspectateur mu Fatihul Bichri sëñ bi ñoo ngi lay nuyu bu baax baax di la ziar. asalaamaaleykum euh, wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax euh, di la sant bu baax ci dalal gi ñu dalal di ñaan suñu borom li ngeen ci séntu suñu borom kat na leen ba ngeen gis ci lu koy sa njot Euh, wax dëgg yàlla man Sidi Dieye laa tudd yàlla dogal njaareem laa jóge bokk yit ci daayira bi nga xamante ni sëñ mustafa Mouhamed moo ko jiite ñu màggal si woon tey yàlla dogal ma ñëw ci barabu sëñ Moustapha bi di ko ziar ba génn nga ma ci laaj yaakaar naa loolu dinaa sawar pour tontu ci bu baax a baax a baax euh, li war a màggal gi xañ na buñ ci duggee dinañ gis ne ku ci nekk kenn ku ci nekk. yitte la nga bàyyi sa yitte yëpp ngir màggal si ndax boo xamee dayu bés bi ni mu toll ak bés bi nga xam ne moom la ñuy màggal kon di nga daanaka dina la jaral jóge fu nekk màggal si ndax bés bi mooy bés bi nga xam ne moom sëñ Touba bàyyee ko woon njaareem ñu indi ko fii ci tuubaa bés boobu la ñuy màggal yaakaar naa loolu yaay yay na ci bépp jullit mu koy màggal na nag ab taalibe kon yaakaar naa loolu ma war a sunu teewaay fii ci bis bi waaw. lan moo tax ñuy màggal bes bi waaye ñëpp rek daal di ñëw fii ci barabu sëñ Modou Moustapha lan moo waral loolu. waaw loolu benn la ci firnde ji benn la ci euh, bi nga xam ne 1927 bi nga xam ne sëñ Touba dafay jóge ci pàkk bu tedd bi nga xam ne moom la liggéeyal suñu borom muy njaareem te def fa fukkeet ak juróom sëriñ Modou Moustapha bokk na ci ñi ko taxawu ba indi ko fii ci barab bi kon yaakaar naa loolu day firnde ne rek cër la boo xam ne moom am na ko ci biir liggéey bi. waaye am na ko it ci bésu tey bi nga xam ne daanaka sëñ Mounoup Sarr boo xoolee amul benn bés boo xamante ni moom lay woote budul bés bi bés bi rek la am ci bés yi mooy bés bi nga xamante ne nii ci la jëlee sëñ Touba euh, Ndiarème indi ko fii te mu doon lu jafe loo xamante ne nii euh, daanaka bu amutoon njaflax wala mu am pësteef yaakaar naa loolu dina sooxe te loolu su amutoon rek ñun murid yëpp sunu jariñu tey ak ëllëg yaakaar naa du mën a am kon loolu moo waral sëñ Mounoup Sarr jëlee woon ko Ndiarème moo waral it bés bi delsee ñëpp seen xel dina dem ci Serigne Touba waaye ñëpp seen xel dina dem ci sëñ Mourou Moussa mi nga xamante nii moo tax ba Serigne Touba ñëw fi te xat damut yaakaar naa loolu moo waral teewaay bi nii moo waral it bu bés bi ñëwee it ñëpp dañuy song barabu sëñ Mourou Moussa bi ngir delloo ko njëkkal ngir xam ne it jàmbaar la joo xamante ne nii xañ na bu doon ak loolu ak tubaab bi loolu sëriñ Touba mën naa ñàkk ñëw fii te bu boobaa it ñun murid yi xañ na euh, cër bi ñu war a am ci Serigne Touba duñ ko ci am yaakaar naa loolu benn la ci li tax euh, nit ñi song barab bi wax dëgg yàlla di ko ziar di ko ñaanal suñu borom euh, yokku yokku martabaam yokku ay leeram ci barzaq Muhammadiya euh, mu mel ni nag bi sëñ bi di def loolu euh, muy bés bi ñu war koo màggal dafa am loo xamante ne nii sëñ bi daf ko cee bëggoon muy ay ñaan waaye muy beneen melokaan boo xamante ni moom la Serigne Touba bëgg est-ce que loolu noonu nit ñi respecté nañ ko ba léegi wala. waaw loolu melokaan bi ci jiitu mooy ginnaaw bi mu ko indee fii bi ci jiitu mooy. dafa ne bu bés bi dellu seetee nan nan ko santalee loolu suñu suñu borom ci indi bi nga ko indi fii yaakaar naa li war ci ab taalibe nag même bu bés bi taalibe li war ci moom mooy mu sax ci ndigal suñu borom yi loolu moo war ab taalibe bu nekk moo xam nga ñëw Tuuba moo xam nga ñàkk ñëw waa waaye nga sax ci ndigal suñu borom yi boo ci saxee pare nit donte ab taalibe nga it nga jëfee ndigalu sëriñ bi jëfee ndigalu sëriñ bi bokk na ci melokaan bi nga war a mel mooy euh, nga nga laab nga laab laab da cee war jiitu laab gi nag du laab rek ci ay yére set waaye da ngay laab ci sa biir xol laabit ci sa ci sa gis-gis laabit ci gis ne barab bii ki fi tëdd euh, nit ku màgg la nit ku liggéeyal suñu borom la nga sàmmonteeg ba barab bi euh, laab lépp la sey cër euh, boo mënee jàng arxuraan nga jàng ko soo mën a jàng arxuraan nga jàng soo ko mun nga def zikkarulaa soo ko mun nga toog di di sant suñu borom ci li nga xam ne moom la ñu xéwale bañ mën a ñëw fii dal yaakaar naa loolu bokk na ci ab jullit farata la ci yow boo ñëwee fii nga sàmmonteeg loolu yaakaar naa loolu moom mooy jullit bi loolu da ko war a njëkk a sàmm bu ko sàmmee pare it mu xam ne it euh, ndigal la ci moom mu wattu ba barab bi euh, def ci pësteef ba nga xamante ne ni bu fi ñëwee lim ci taataan parce que fii yiw rek lan lan fiy taataan te it euh, sëriñ bi da am dafa am solo lu lu mu ci waxoon am na lu am solo lu mu mooy nee na gisul benn yitte bu jar bésub bi nga bañ a fanaan Tuubaa gisul yitte bu toll noonu gisul nit ku am yitte bu jaar su màggal gi nga bàyyi ko bañ a fanaan newoon na it boo gisee it kenn koo xamante ne nii gis nga ne mi ngi ñëw te amul paas bëgg naa ñëw te amul paas eh, la nga naroon a ñëw pour ziar ko jox ko mu paase kon moom dafa gisoon ne bésu tey bi li ci war mooy ruu yu ñëw mu mu mu faj aajo yi eh, fa faj faj faj ruu yi yaakaar naa loolu mooy loolu moo waraloon dëgg dëgg dëgg yi yitte ñu ñu woote bésu tey bi nii waaw. jërëjëf euh, Serigne Sidi Dieye mu mel ni kàddu yi am na solo lool ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax dañ lay bàyyi rek nga daal di jaajëfal koo bëgg a jaajëfal ci bés bi. jërëjëf maa ngi leen di jaajëfal yéen waa Bichri ndax euh, wax dëgg yàlla liggéey bi am na solo ndax bu njëkk benn télé rek la naan gis muy ñëw di couvrir màggal gi waaye léegi gis nañ ne waa muy RTS waaye léegi gis nañ ne wax dëgg yàlla waaye loolu lépp day bokk rek ci li sëñ waa ñaanoon ndax sa Serigne Touba sa Cheikh Abdou Lahad Mbacké euh, yal na ko yàlla dooli leer am na benn benn temps ci jamonoy RTS xañ na amoon lu ko metti woon ci ci ni daan taxawee tuuba ak màggal gi ni daan taxawee mu ñaanoon ne mu ngi ñaan suñu borom dina dem ba Touba ay rajo rajo di fi nekk ay télé télé di fi nekk yaakaar naa loolu ñaan googu egsi na ba li ëpp ci màggal gi yeneen télé yi ko génne yëpp bokkuñu RTS ñi ëpp ci màggal yeneen télé yi ko génne yëpp ay télé yoo xamante ne te yow loolu bokk ñu ngi leen ñaanal suñu lépp lu ngeen séntu ci màggal suñu borom leen ko ba kàtt nan leen ba saa bu ngeen fi del seetee ngeen am lu gën a kawe njortu li ngeen am ren te loolu euh, gis nañ ne sa Sëriñ Tuubaa dina ko dogal ndax euh, taxaw ngeen ci am ngeen pëste ci màggal gi ndax booba léegi yendalu leen leen ngir bëgg rek lépp loo xamante ne ni ngi feeñ ci gi ngeen leeral ko leeral ko askan bi yëpp yaakaar naa loolu am solo la ñu nga ñaan suñu borom leen dolli leen yow it wax yàlla suñu borom yàggal la ci taxawaay bi sa pësteef gis nañ ko bëgg liggéey bi ñu ñaan suñu borom kàtt nan la di jërëjëf ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kooku nag moom moo nekkoon di Dieye di taalibi Serigne Mbacke soxna loo bàyyeekoo fee nga xamante ne nii rek moo di ca dëkk bu tell ba dëkk bu sell ba di njaareem ah, Sidi Dieye ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax sonnoon nañ nag gis nañ seen convoi bi macha allah mais yal na leen yàlla fay li ngeen fi bëgg ci bés bi yal na leen ko yàlla defal ci noonee rek laay daaguwaat daal di xool ah, ci soxna yi wala sax ci góor yàlla yi keneen ku ma mën a dénk sama micro rek ah, jërëjëf gannaaw ba ma jógee ci ci kooku nga xamante ne nii rek moo di taalibi Serigne Mbacke soxna Soxna maa ngi dajewaat ak ki nga xamante ne nii nag kenn la ci ñun kenn la ci waa Bichri muy Serigne Mame Mor dem di magu moom soxna Mame Anta dem dama koy bàyyi rek mu daal di nuyu ak téléspectateur mu Fatihul Bichri te daal ñuy wax nag bés bi lan mooy njariñam ak ko ko màggal si ban pay nga ci lala euh, ci suñu borom di jox ma bàyyi la rek nga daal di di saafanteeg mbokk yi. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala asraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaani ila yawmi ddin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñi ngi nuyu mbokk jullit ñi ak mbokki taalibe yi fu ñu mën a nekk ci àdduna si dañu bàyyi dañu bàyyi xel ci télévision bi di Mafatihul Bichri di leen ziare bu baax a baax di leen ndokkeel ci guddi gu sell gu tedd gu mag gi nga xam ni guddi la gu am ama am solo ci yoon murit di guddi gu bari sam ay jeexit ci yoon yi ñu ngi leen ci nuyu di leen ziare bu baax a baax xam naa ni laaj biñ ma ko laajee waxtu biñ ma ko laajee xat na ci man xat goo xam ne ndax mel na ni eh, ñëwoon rek di siyaar si ci guddi gi ak di ko dundal si far yam ci ñu laaj ñu laaj bi xam naa ni lu lu jafe tontu lay doon ci waxtu yu xat yi wala kon boog dama koy gàttal lool guddi gi sëriñ moo du Modou Moustapha ci jëm boppam wax na ni képp koo xam ni guddi gi yàlla def na nga fanaan si ko Touba dundal ko ba guddi gi jeex sa yaram ci boppam araamal na sawara waaye loolu boo ko seetee itam dafa yanu maanaa ndax sëñ bi li nga xam ni moom la jaayante suñu borom liggéeyal ko ko la ko tàmbalee ci bi gane àddina waaye nag dëgg-dëgg liggéey bi tàmbalee ci atum jeesisin bis bi nga xam ne ci la génnee këram ci Mbàkke Bari te mooy tombeek fukk fan ak juróom-ñett ci weeru safar mu wax ni xarajtu yawma sabti thamina achar li xidmatil muxtaade fi chahri safar génn boobu nga xam ne moom la génnoon di liggéeyal suñu borom liggéey bu rëy boobu nga xam ni wax na ci yu bëree bëri yu ko ci yàlla defal ci liggéey bi dajale ko ceeg moom ba bi mu ñibbisee jógee fi dem gànnaar jóge gànnaar jóge fi dem ci ci yen Jolof jóge ci yen Jolof ñëw Njaareem yooyu yëpp di liggéey yu rëy rëy yoo xam ne liggéey na suñu boroom bis bi mooy bis bi nga xam ni ci la dajeek suñ borom. suñu borom fay ko liggéeyam bu tedd bu rëy boobu nga xam ni moom la liggéey ci kaw suuf tam wax ni képp koo xam ni njort nga ni liggéey bi ma liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana mel ni sab liggéey sam moo des waaye liggéeyal naa yàlla ak yonent bi loo xam ni kenn mës ko ko liggéeyal te kenn dootu ko ko liggéeyal ba mukk mu ni tagg gi may tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam day taqoo ga raw dootu yonent ba tam bépp wàll yi bu mu maa doon lottu nga ci def tagg wu ni mel noonu wana an mislihi kulla wali kon mu mel ni sëñ bi ab liggéey la boo xam ni suñ boroom ci boppam da koo jagleel muy maanaam jagleel goo xam ni mel na ni wax ko sax moo gën a yomb dégg ko waaw kon ci guddi gi ci la dajeeg suñ borom sëriñ Modou Moustapha jóge ñaaxeer bi nga xamee ni sëñ bi mu ngi fi bàyyi ko yooyu altine ndax am na ku ñuy wax sëñ Mor Kebe mi ngi dëkkoon fii ci njaarim ba mu faatoog léegi sax at rek ci lay toll ba mu yées ko yàlla def mu doonoon sama wóllare bokkoon ci gone Njaareem yi ñi ñu ñaar woowee gone Njaareem yi sa sasoon ci sëñ Basiiru moo ma nettalee wax ma ni ma dañ daan teel a yeewu bu nu yeewoo taal mattum jalambaan toog ci buntu euh, fi nga xamee ne fi la sëñ bi war a ubbee ni ma ñaari sëñ bi nag lu cëpp fukki waxtu laan ubbi bu ubbee damay dem ca néeg ba. Euh, taal bi nga xam ne moo daan tàkk ci néeg sëñ bi te fanaanee tàkk damay wàqi suuf si nekk ci biir dugal suuf su tàng si ci kaw te suuf si ma génnee ci biir mu suuf sedd si ma teg ko ci kaw loolu bi set wax na ni daana ko defal sëñ bi waaye moom ci boppam moo ma nettali ni ma fajar gi nga xam ne ci lañ toog maag sëñ maag sëñ Basiiru sëñ bi génn ci ci néeg bi mu nekk nee na fajar goog dafa fekk sax muy wicci wiccal ay wicci wiccal yu yam di fajarug altine mu génn jël caabi ji ki sasoon ci bëkk néeg bi am lu mu wax jàll man si man ma ne sëñ Basiiru kee de sëñ bi la ni génn am am lu mu wax mu ne ma gëstul lu mu wax ñee ma gëstu laaj ñu ni dafa jël dafa jël caabi yi wax leen ni leen nañ jàll toog te déglu ndigal fajar altine googu ci lañ ko mujj a gis defe naa kon moom bokk na ci ci ñu ko mujj a gis bi nga xamee ni sëñ bi Mustafaa itam ñëw na fekk sëriñ bi bind xasida xaatimatul munaajaat mi nga xamee ni mooy li mujj dayaale suñu boroom wax ci ay wax yu yéeme yéeme yéeme diggante ma suñu borom yu doy waar bi ñu ko indee fii nag loolu mi ngi tombeek guddik talaata ni ki tey jii euh, sëriñ Mbacke Bousso taxawu ko ki nañu taxawoo népp ba ñu denc ko fii ci penkub jumaa ji kon bis bi mën nañoo wax ni bisub ndam la bisub bisub fàttuxu la bisu njëgal la itam ni ma ko waxee itam bisu ak soppe bu dajeek ab xayitam la itam kon loolu bokk na ci bis yi gën a tedd ci yoonu murid gën cee màgg bokk ci bis yi ñu war a gën a fonk te gën ko bàyyi xel ndax képp koo xam ne dund na ko ni ma ko waxee léegi si Sëriñ Moustapha wax na ni sa yaram araamal na sawara te ab jullit li ëpp njariñ ci li muy sàkku mooy taxe goo texe goo xam ne ak texe di doo topp ci bukk kon bu amee lu ko ko mën a may loolu war na caa def yitte war caa góorgóorlu rawante nag mu tombeeg bis bu rëyee ni bii ñu di ko wooyee màggal màggal màggal gunaaw gi lu mu ko indi kon daal negam waxtu wi njatt na njatt goo xam ni tey itam siyaar rek la ñu si dama koy gàttal foofu di jéggalu mboolem ñi ñuy diglu ak fu ñu mën a digloo ci goxe àddina yi rawatina ci télé bi dama fàttali Bichri nga xam ni seen liggéey bépp mooy tasaare diine ak leeral ko te aawe ko ci njàngaleem Serigne Touba di ci nuyu sëñ Madiama ak ñi nga xam ne ñoom la ko àndal ñëpp itam. di ñaan suñu borom kattanal leen defal leen di mal ak tawfiq ba li ñu bëgg ci télé bi mu yàgg fu kawe seen jot di nuyu itam xaarim buso suñ xaarim buso ma nga xam ne moo nekk foofu ci Amérique di sama mbokk itam di ko si bu baax a baax di siyaare mboolem ñi liggéey ñi liggéey ci télévision bi ñaan gi ma ñaan itam di ñaan suñu borom ñoom ñëpp ñu dugg ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, jërëjëf Serigne Mame Mor ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax mu mel ni leeral yi am na solo ndax yaakaar naa ne am na ñoo xamante ne nii li nga ci leeral nii euh, ñu bëri réere woon nañ ko mbir kon ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Euh, gannaaw bi ñu jógee ci Serigne Mame Mor dem moomu dama yem ci ki nga xamante ne nii rek kenn la aussi ci waa sëñ Mbacké Soxna loo muy Serigne Cheikh Mbacké Gaynde di jàngkat bu mag dëkk fee nga xamante ne nii rek moo di Diourbel ñëpp xam ko ci liggéeyu Serigne Touba waaye ñëpp xam ko it ci Touba tey nag ñu fekk ko itam ci bunt barabu Serigne Modou Moustapha kon hasard amul lépp loo gis rek sëñ bi da koo prévoiroon avant damay bàyyi rek mu daal di nuyoog téléspectateur mu Fatihul Bichri te daal ñuy wax nag ngëneelu bés beeg yi tey bés bi sëñ bi ñoo ngi lay ziar. jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maam Fatihul Bichri ñu ngi leen di ziar bu baax. ñaan aajo juñ fi indi yàlla na ko sëñ Tuubaa saafara siyaare it barab bi nga xam ne moom lañ taxaw mooy barabu Cheikh Moustapha ay Serigne Cheikh Diène Fatma mi nga xam ne moom la ñu duppee fii la ne ak sëñ Mbàkke Madina moo ngi ñaan suñu borom dolli seen i leer lool te taaf nu seen barke. muy bis bii nag muy bis bu mag boo nga xamante ne ni ñu ko waxee rek bis bi dënal sëriñ Touba ci bis yi muy bis bi nga xam ne ci la doon dajase suñu borom te it daa tombewaat ndax bisub talaata la woon ci guddi Cheikh Moustapha jëlatu njaareem indi ko fii tey di talaata. kon sëñ Touba am du neen sëñ Moustapha it waxoon ci lu rëy sëñ Modou Moustapha ne bis bi fu ay nekk bu jotatee na nga ñëw fii ci jëmmi Touba fanaane ko fi ba bët set ndax nee na fajar ji malaayika yi na yëpp dañuy wàcc ci tubaa te boo fi fanaanee mel na ni liir boo xam ne day door a dane jamono ci waajuram ngir ñàcc bàkkaar kon bis boobu bis bu ni mel amut ci àdduna ton nag ñoo ngi ñaan mbokki taalibe yëpp yi nga xamante ne ni ñoo fi nekk lu waay mën ci jàng alxuraan jàng xasida sitar tudd yàlla sant sëriñ bi nu def to bu baax a baax te xam ne duddi ji tum rëcc rek déwén nga koy amati ci tàttanu yàlla yéen waa ma Fatimel Bichri noo ngi leen di siyaar di lu seen liggéey lool ñaan Sëriñ Tuubaa faj seen i aajo te faj suñu aajo saaran baati na jëpp aaj joo xam doomu aadama na fa indi yàlla na Sëriñ Tuubaa saafara lii nga xam ne moom la ni yëngu it mu xasida yi Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne tum loxo kenn du la mën a mën a dellul ginnaaw kenn du la mënal dara yàlla na nu tedd loxo te defal na lu faw xas sunu njort ci xasida yi bis bi it tu ne xam ne xaatimatul munaajaat di xasida doodu wax nañ ni mu Moustapha bi muy ñëw ci tu tedd ci moom la fettoon ci tawam muy xaatimatul jaati moom la sëñ bi mujj bind ca njaareem te ca njaareem la tu binde woon xanaa ton bu munta ñaat ñu barkeelu ci ay bayit rek def su àddiyee sëriñ bi di ñaarit aajo jong xam ne am nañ to rek sëriñ bi xam na aajo yëpp yàlla nañ ko fajal ci barke xasida sëñ Tuubaa aouzu billahi mina seytaani rajim wa inni u'iizuhaa bika wa zurriyatahaa mina seytaani rajim rabbi aouzu bika min hamazaati sayaatiin wa aouzu bika rabbani yahduruun bismillaahir rahmaanir rahiim sallallaahu alaa sayyidinaa muhammadin wa sallama wa allamaka maa lam takun ta'lamu وصل للأخ من الأخ المبين لخاد ما بان وما ليس يبين وصل للأق من الأخ المبين لخاد ما بان وما ليس يبين حلمني ما كان قبل الخلق من كان لي بترم وتلخي لم ينسات جالب النيران أو جالب العرين والخسران لم ينحني درر النار الدنيا واغتسني الباخي بخير سنيا ملتني ما لم يبيو عني وخاد لي بقاء بالمن ترامتي كتاب من رفاني بي إلى الجنان مصنفاني مع مماتا قد نفوسا ولسواي ساخوتا في ساق إلى سوى انتهاء الموت نعى النفوس تلا بفوت لم تنني مخدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين تعبدوني بدلوا من موت نفسي معناني جدل ترسي عن الموت بقاء الله أبغاني الله لوجه الله كفاني الباغي الممات سرمدا وببغايا يسور مدى كفاني الباغي الممات سرمدا وببغايا يسور مدى نفعني ولم يدورني ولا يدورني ذل علي حولا ترسي الأمراض والممات بقى واسي من السماء علمني بقولي إليّ البيت رافعا بها المردية لا سطر في توني باللمين في وبالكتاب واللمين ملتني اللمين واللمين kitaabu baaxin jaani taamiinu subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wa salaamun alal mursaliina walhamdulillaahi rabbil aalamiin jërëjëf kooku ngeen déggoon mu doon jàng nag moo di Serigne Cheikh Mbacke Gaynde ma ñu tubbee ko Serigne Cheikh mbake mu mag ma moom nag jàngkatu xasaayit la bu mag a mag fii ci nga xamante ne nii rek mooy njaareem Touba ak fépp foo xamante ne nii rek soxla nga xasida Serigne Touba yi heure boo ko wooyee mu ñëw te nag li li li muy gën a def di ko def mooy laajul kenn ñaar dërëm moom loo ko jox rek muy addiyee Serigne Touba day jël kon sëriñ bi dañ lay bàyyeeg Serigne Touba Xaadimu Rasuul moom mi am fay yàlla na la fayal euh, boppam ndax yaakaar naa ne fayu Serigne Touba moom moo gën kat fayu fayu xaalis wala fayu àdduna kon ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Euh, macha allah mu mel ni nag fu nekk la nit di jóge di ñëw di màggal si bés bi euh, ngir euh, bés bi am solo gi nga xamante ne ni moom la am solo dégg ngeen sëriñ Cheikh Gaynde li mu fi wax ak xasida gi nga xamante ne ni moom la fi jàng waaye dañoo gisaat suñu mbokkum taalibe muy oustaz Mbacke Diouf di liggéey rajo Moubarak FM nekk fay ci Diourbel dama koy bàyyi rek mu daal di nuyu ak téléspectateur mu Fatihul Bichri

ñi ñuy bàyyi xel ci seen Bichri TV ci àddina wërngal këpp ñoo ngi leen di ziara di leen nuyu fii ci barab bu sell bi ci Touba al di dëkk bi nga xam ne Serigne Touba radiyallahu anhu ci la ñaanoon yàlla ne yàlla defal ma euh, place bi gën ci samay dëkk wala dëkk bi gën ci samay dëkk wala nga defal ma dëkk bii di Touba muy dëkk bi ñu gën a sopp fi yow ak ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wajaalhu yaa rabbi ahaba maskanin fi ardina lakka walil maahi sanni ci dëkk bii di Touba ko ñu leen ciy ziyaara bu baax di ziyaare kilifa yi nga xam ne ñooy saytu liggéey bi di ñaan yàlla bor bi subhaanahu mu sàmm ñu dafa ñu tawféex di ñaanal Cheikh Seydi Al Mokhtar yàlla sàmm ko wëral ko mu gën fa yàgg lool eh, liggéey bi rafet na ku taxaw ci jumaa ji xam ne la baayam ba Cheikh Moustapha tàmbale woon 1928 ba 1939 eh, mu jafe lool yàlla dogal yëf taxaw fekk jumaa ji raase ba sori lool bi ñëwee ba yàlla dogal nag Cheikh Amadou Fadal wuutu Serigne Touba taala anhu ci la liggéey boobe kon Serigne Sidi Mokhtar li ay waajuram ay baayam defoon mel na ni àggale na lépp bu ko defee xam naa euh, laaj bu am solo la laaj bu am solo la bu pertinent ndax bés bi bésu ñaan la bésu zikkar mooy bés bi nga xam ne ci la Serigne Touba ñëwoon ci ngërëmal yàlla 1927 guddi fukk ñaar fukk ak ñaar fukki fan ci tamxarit ci la Serigne Touba wàcc na bu liggéey ñëw ci ngërëmal yàlla mu dénkoon Cheikh mu Al Karim ne ko bés boobu bu dellusee nañu daje Touba ñaanal ma lépp loo xam ne mën nañ ko ci lu baax rek ñu def ko. njàngum alxuraan njàngum xasida loolee la Serigne Modou Moustapha waxoon mu waxoon ci wax ju doy waar nag ndax Cheikh Moustapha waxoon na ne guddi gi ku ci fanaan Touba yàlla jéggal na say bakkaar ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ahlu badrin mboolem gaa yu baax yi guddi gi dañuy fanaan si Touba waxoon na sëñ Mor Ndiandam benn at la woon sëñ Mor Ndiandam nekkoon cib sanc yëf yi jafe woon lool ngir mu ñëw Touba. Euh, ca ëllëg ca déwén sa bi mu ñëwee mu ne ko Mor Njàndam foo nekkoon suñu Modou Moustapha moo koy laaj mu ne ko man damaa nekkoon ci sànc bu metti yëf yi jafe woon lool xiif beeg xeet yooyu rek bekkoor bi mu ne Mor Njàndam amul dara lu war a tax guddi gi Serigne Touba demoon ci ngërëmal yàlla dellu si nga gàntal bañ a teg samp say tànk Touba nee na dara jaru ko ci kaw suuf doonte benn mbubb la sax nga jaay ko ñëw. wala bu la lépp te seetal xibla gi jëm Touba nga jaar yoon wooye ba sori ñëwaat ndax ñii ñëw Touba ci guddi googu malaaka yërmande yi dañuy wër mbedd bu ñu joxe xéewal gi ñu nekk Touba ba pare dañuy wër mbedd yi xibla gu jëm Touba rek mbedd mu fa jaar rek dañ tasaare xéewal yi boo fa jaaree yàlla dafa lay xéewal e, kon loolu mooy sababu màggal gi e, bëri na ay débat ñaan màggal gu mag gi màggal gu ndaw gi li ko waral mooy ñu naan màggal gu mag gi mooy ci la Serigne Touba demoon ci ngërëmal yàlla bés bi mu demee ci géej gi bës bu am solo la bés bu mag waaye nag bës bi mu demee ci ngërëmal yàlla nag bës gënu ko rëy daa waxoon ne allahuma ijal xayra ayaami yow ma alqaaka yàlla defal ma bés bi gën ci samay bés muy bës bi nga xam ne ci lay daje ak yow suñu mbiru saa sonoon ci lool fii ñu taxaw ci jumaa ji fii la ko doon woote booba micro amul haut-parleur amul rajo amul dara amul waaye kenn ku nekk day dañuy nekk ci xibla nekk fukki nit jëm kaw ñuy jëm ci côté Daara Moxti ba côté gànnaar sow penku duñ bàyyi dara bu ñu waxee fii bu sëñ Modou Moussa am ko jotli mu jotliwaat ku ñu ca des pour ñëpp dégg ko kon tey bu ñëwee ba euh, télévision Bichri TV ñëw fii war koo jàllale ma ne kon la Cheikh Moustapha bëggoon ndax jamono joojee bu communication toll woon fii kon télé yi ñoo koy dégg seeni i micro ndax da ko doon jot li benn par benn ku jot rek da ngay jot li ka ca des mu jotiwaat ka ca des ba mu daj ci xibla yi ñëpp jot message bi mu taxoon taxawaay bu am solo daan ci santaane jaamu yàlla daan wax lu waay mën ci alxuraan na nga ko jàng lu waay mën ci xasida na nga ko jàng ndax Serigne Touba léppam alxuraan la ak xasida ndax kenn ku ne xam na ne. daa digle woon sax ne bépp taalibe di ab murit bu aju ci man nay jàng alxuraan te bañ koo fàtte na dëkk ci jàng alxuraan kullu muridin bi yalus fal yudim tilaawatan li xayri zikrin xadru sim loolee nag mooy bés bii tey mu ñuy fàttali lu bare bare ndax Cheikh Moustapha bi mu wuutoo Serigne Touba radiyallahu anhu woon na métti woon na ndax indi woon tubaab bi Serigne Touba fii tey daa jafe woon tubaab daa tegoon xalaat daal di wax ne moom kat li mu bëgg mooy bu fi sëriñ bi jógee ñu jël ko yóbbu ko France teg ko ci musée yi mu nekk euh, mu nekk archive ñu koy seetaan loolu la tubaab bi loolu la visé woon moo tax bi mu demee ba wàccab liggéey nag sëriñ Modou saa def kattanam ak pexeem ba yóbbu ko Touba indi ko fii tey ndax wax nañ ne da ko waxoon ne ko Modou Moustapha lu ngeen wax ba tubaab bi am ci man yoon ba yóbbuwu leen ma Touba de lu ngeen liggéey yéen ko liggéey lu ngeen am yéen a ko liggéey seen bopp waaye boo góorgóorloo ba ngeen yóbbu ma sama dëkk bu sel ba bëgguma lu dul moom yóbbu ma ca Touba na ngeen xam ne lépp lu ngeen am rek ci sama loxo bii lay jógee kon Cheikh Moustapha Dianam wàcce na moo tëral loolu seen Touba amoon ci moom yaakaar lool wax nañu am na benn bés da ko woo jumaa taxawal jumaa ji ne ko booba yàggoon na lool ndax booba tabax jumaa yombul Euh, dama bëgg sama ndigal lii di ndigalal jumaa ji nga taxaw ci bépp coono bu la ci fekk na ko toggoo lépp loo ci daj na ko nangu te lépp la ci waaye wax na ko muñ na nga fex ba jumaa ji taxaw te bu ci amati benn benn loolo loolo looy sikki wala nga ragal ne ko euh, na yem tey nga ciy diisoo ak man daal di tari benn bayit bu araab yi doon wax muy wa ida ay qasat ka xurubul ida fa nabbi la amiran araab yi dañoo amoon benn léeb boo xam dañ daan toog maanaam dafa am benn buur bu ñu doon wax amir benn buur boo xamante nii daa am dagg bu ñuy wax amir muy ko sécurité am la yoroon am doole am kattan ñeme kenn ñemewu ko nga xam ne tey bu ay soldaar ñëwoon bëgg a toroxal buur bi it buur bi moom bu bu fëggee amir ba amir jóg rek day dem tëdd nelaw donte ay jaasi ak i paak ak i fetel lañ yor waaye buur bi bu nee amir amir jógal ba amir jóg rek moom xelam day daal parce que amir am na moo yor sécurité am sëriñ ci wax sëñ Modou Moustapha ko yow Moustapha yaay sama maameer yaay sama maameer xalaatuma dara fekk yaa ngi taxaw rek yow yaay sama maameer kon yaakaar googee mu amoon ci moom ba mu taxawal jumaa ji ñu ne ko balaay moo taxaw fa nga taxawal raay bi mu taxawal raay bi Touba nekku doon ci moomeelu Serigne Touba mu bàyyee ko def ko titre foncier mu nekk moomeelu Serigne Touba euh, talari la mu sànq woon 5 millions la Serigne Touba joxoon mu sànq ko sëñ mu Moustapha porte plainte tubaab bi bu jëlaat 5 millions jaxawaat ko ba loolu moo waral tey jumaa ji taxaw nii tey kon euh, Cheikh Moustapha am na ci taxawaay bu rëy da ngay dégg ñaan màggal Daaru Xudoos màggal Cheikh Moustapha màggal Serigne Cheikh Mbacke waaye màggal Serigne Touba mooy mooy fan maam bés bi Serigne ñu ñëwee tubaa waaye taxawaay bii ci Cheikh Moustapha taxaw looloo tax ñu koy tuddee màggalu daar Khoudoss ak màggalu Cheikh Moustapha waaye murit yëpp a ko bokk ñoo ngi ñaan yàlla borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawféex mu sàmm ñu sàmm leen yokki télé bi mu jëm ci kanam baax a baax a baax lii mooy liggéeyu lislaam Serigne Touba loolu la daan dajale maanaam bi mu nekkee ci kaw suuf leen rek moo nekkoon yitteem nu muy def ba lislaam nekk benn ba taxawal lépp am na ñu bëri dañoo ñëwoon jàpp ne Serigne bu wootee tarixa day indi problème bu ñëwee fii indi tu indi Touba def fi dañu yaakaar ne problème la seen Touba ne leen déedéet man affaire tariix moom moom man xaadimu rasulullah lii sama mission mooy dama bokk ñëpp jëriñ ñëpp di wax leen xanaa xamu man ngir yi sax ngir bu nekk ànd naa ci euh, ndax boobu tey Ibadou Rahman dañuy jàpp ci ngir xaadire jàpp ci ngër keneen jàpp ci ngër boo demee ca Kuufa ci réewu Iraq ci réewu arab yi am nañ problème boobu problème bi am mooy nan la ñuy def ba mën a ànd ñee dañ naan man ci Chafiyan yi laa bokk ñi naan ci ah, euh, Hanafi la bokk bu ne ngër ngër mooy école école école yi nga xam ne mooy les les écoles de jurisprudence wala les écoles yi nga xam ne ñooy giide ñooy guider nit ñi pour ñu mën a xam yàlla Sëriñ Tuubaa bi mu ñëw def leen ne mazahibi euh, euh, aimati fil fiqhi maliki l ali wa shafii wal hanafi wal hanbali mu ne man ñeen ñeent ñëpp laa reconnaître loolu lim ci jublu woon mooy ni muy def ba boole nit ñi bi ñëwee it ñaan ko a ah, sëñ Tuubaa de comme woote na tarixa dootut faale benn sëriñ mu ne leen mashaayiqi sayiduna al jilaani wa zazali maahu tijaani ñii ma fi fekk di zazali di Cheikh Abdou Khadir Jilaani di Cheikh Ahmad Tijaani ñëpp def naa leen ay sëriñ léegi mu dindi problème mu xatal ñu gise kon kii kat ñëpp mën nañ koo topp kon loolu li ma fi bëgg a jàngale mooy Serigne Touba ku ku ku yaatu la ku ku ku ubbiku la université la boo xam ne ñëpp ko bokk du murit yi kese tijaan yeeg xaadir yeeg ibaadu rahmaan yi ñëpp a bokk Serigne Touba yërmande yàlla la woon ci kaw suuf ku ñëw fii tey nga xam ne ku liggéeyal yàlla waaye ku liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loo fekk ci Madina boo ñëwee fi daanaka danga ko fekk euh, na ko gàttal foofu bu fekkee am nga beneen question incha allah ñu tontu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa jërëjëf oustaz mu mel ni kàddu yi am na solo macha allah yaakaar naa ne lépp li nga fi wax leer na te it lépp li nga fi wax euh, nopp déggees na ko waaye dangaa wax lu am solo ci euh, suñu télé bi muy mu Faatihul Bichri tele bi nag dafa dogal ñu tuddee ko xasida Serigne Touba wëlbatiku mu nekk tele Serigne Touba kon lépp Serigne Touba ci télé bi la nekk kon ñu nit suñu léppi lu ne mu ngi ci Serigne Touba yow itam ñoo ngi lay jaajëfal ci bés bi di la jox sa wàccuwaay ah la ñaanal ci barke Serigne Touba li nga bëgg ci liggéeyam yaa ko xam yàlla na la ko sëñ bi defal Ah, ci noone nag ci laay ah, gërëme ki nga xamante ne nii rek moom moo di tonton ah, mu mel ni nag agsi nañ fi nga xamante ne nii moo di ci cëppaandaw ji cëppaandaw ji nag bu ngeen ko déggee mooy màggal gi fi mu toll nii mu ngi ci buntu jeexantal bi ndax léegi 5 heures du matin jot waaye nag yéen yi nga xam ne yéen a nekk Bichri international yéen yi nga xamante ne nii rek yéen nekk partout dans le monde lii lañ leen indiloon ci màggal gi nga xamante ne nii rek bésu ziar bésu ñaan muy bés bi nga xamante ne nii moom la Serigne Touba demee demee wuy ji suñu borom ah, mu mel ni nag tey ñu bëri dund nañ ko ndax ñu bëri jóge nañu ay dëkk ak dëkk ñëw ah, ziar si li nga xamante ne nii moo di bés bi waaye def fi itam ay ñaan waaye ñaan lu itamit yàlla jéggal leen seeni i bàkkaar mu mel ni gis nañ fi ñu bëree bëree bari waaye itam mu mel ni ah, sama naataangoo yi def nañ ci liggéey bu mucc ayu ku ci mel ni Serigne Koso ak sëriñ Maam Thierno def nañ ci waxtaan yu am solo macha allah waaye ki ci mel ni géwélu Bamba di ak euh, ak ay invité am ñoom tamit def nañ ci ay waxtaan yu am solo waaye itam tonton Gora ak mm, euh, ndaataangoom yëpp itam def nañ ci liggéey bi nga xamante ne nii macha allah ah ba ku ko gis mën koo seetaan nee naa la bu du toon ñoom ah image du baax bu du toon samay caméraman image du rafet waaye bu du toon nag ah, ñi nga xamante ne nii rek mooy ñoom tonton Mor ak ñi nga xamante ne nii rek ñoom ñoo nekk Bichri nekk ci wàll euh, caméra bi ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ndax lépp luy image bu rafet rek yéen la euh, barki dem ba tey toogoo leen yal na leen sëriñ bi fayal boppam yal na leen sëriñ Touba gën a jàppale waaye itam yal na sëriñ Touba gën leen a saxal ci yoonu sëriñ Touba kon nag maa ñi nga xamante ne nii ñoom laa bokkal mu fatihul bichiri ñooñu du ma jóg ci di leen ziyaar du ma taay ci di leen ziyaar ndax mu fatihul bichiri kat nee naa la ëtt la waaye ëtt boo xamante ne nii nag daara la ñun ñëpp dañu fay ah, jàngee ah, li nga xamante ne nii rek moom moo di mbiru sëriñ Touba ah, daje rek 18 safar incha allahu rabbi ngeen ànd ceeg Bichri ci yeneen facette waaye yeneen façon yu bees ak yeneen image ndax nag suñu caméraman yi euh, macha allah xarañ nañ ñoo ngi leen di ñaanal bu baax a baax waaye yéen itam yéen ñiy seetaan mu fatihul Bichri yéen di nga xam ne yéenay bëggee mu fatihul yi dañ leen di bàyyee ñaan yi rek ngeen ñaanal suñu caméraman yi yàlla saxal leen fi yàlla waral seen i cër ba liggéey bi nga xamante ne nii moom lañ sumb di ko liggéeyal euh, Serigne Touba Khadim Rasoul ñu daat koy àggale ci seen sago di jaajëfal bu baax leen euh, dig daje 18 safar incha allahu